dëgër ngir ndaw ñi gën a ñoŋal lii di communication bi jëmale ko ci ñoom xam liñ fiy teg ngir seeni ay jafe-jafe loolee di ay pexe ngir faagaagal phénomène mbëkk mi mu di nag gis-gis bu présidente bu ëmb association sénégalaise buy xeex lépp lu soxal mbëkk mi lee. que ne réew boo xamante ni dañu naan soixante dix soixante quinze wala quatre vingt pour cent ay ay ndaw la am pour man. li mu waroon gën a focaliser wu mooy programme am yépp mu nekk loo xamante ni da koy ndaw yi dañ ci am pàcc bu yaatu wala lépp loo xamante ni da koy jël mu gën a considérer jeunesse am bi nga xam ni am na ko ba du xalaat leneen wala xalaat feneen wala du ko jéem a uti feneen. di def ay assises di def mais bu ñu defee ay assises. sur peut-être la migration wala sur l'employabilité de la jeunesse peut-être loolu dinañ fa gis solution yoo xamante ni dinañu ci am dinañ ci am mu nekk saafara. muy dox ci sensibilisation ak wàcc ci terrain bi ngir yee ndaw yi. nga xamante ne def nañ ko rek mbëbët ndaw si day xeex lépp loo xamante ne tukkee na wala laal na mbëkk mili ñàkkul di rafetlu nag fexe yi nga xamante ne yëpp nguuru Sénégal teg na ko fii waaye nag lu muy ñaawlu moo di liñ ci lal. li nga gis ndaw yoo xamante ne dañuy topp ci benn direction wala ñu topp ci benn agence topp si ay ñaari at ñetti at projet bi du mujj fenn. du mujj fenn parce que xamuñu fa kenn kenn boolewu leen ak kenn parce que xamuñu fa kenn parce que faruñu ci ma sàmba wala faruñu ci ma demba loolu obstacle la boo xamante ni bu ñu sañoon ñu yombal ko ndaw yëpp ndaw aussi boo financé bëgg mu am ci lu mu jàpp nga tegal ko ci taux boo xamante ni xëy na moom bénéfice bu toll noonu sax du ko ci am ak réew bi nga xamante ni fu ñu toll nii ñëpp xam nañ ni mu méttiwee donc lu ñuy sàkkuwaat foofu rek mooy ñu gën a yombal ndaw yi ci accès au financement yi jamono ji nag lii di xalaat lii ci biir séminaire yi war nañ ko rek weesu di wàcc ci terrain bi dugg ci xelu ndaw yi ngir xam lan la ñuy nas loolee ñu yokk ci itam di xool koppar bi nga xamante ne partenaires yi ñoo ngi koy indi fan lay jaar.